salaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa saxaabatihi alxurri almayamin wa ala xayri xadimihi di lxabli almatin wa ala man iqtafa athaaruhum ila yawmi ddin bokk jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh gannaaw bi nu santee sunu borom subhaanahu wa ta'ala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfalaat a Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di len ndokkeel ci bis bu tedd bii sunu waxtaan tey ñu bëgg koo jëmale rek ci fi jamono toll ci lenn ci yàqu-yàqu yi jikko yi dañoo toll jamono joo xam ne dafa mel dañoo am jafe-jafe ci sunuy jikko suñu wëlër te li ko indi lépp mooy fàtte gunu fàtte li taxoon yàlla bindunu indi nu fii ci kaw suuf kenn eh, ñenn ñi xamuñu ko jéemuñu ko gëstu sax waxuma la di sàmmanteeg moom kon dana aaje nu jàngat li taxoon yàlla bindu nu indi ci kaw suuf ndax sunu ko xamee ak sunu ko umpulee lépp dana nu ko laaj suñu delloo ca moom li tax yàlla indi na fi nag weesuwul nattunu ndax dafa am waru gar wax xam ne ñoo ko gàlloon sunu bopp ndax bi sunu boom gaaralee amaanaam ni mu ko waxee ci alxuraan te mooy ni mu jëflante teg doomu aadama te mooy bind ko jox kom xel togg ko ko jëf digal ko tere ko dexal ko tëkk ko mooy amaanatullaahi sunu Boroom nee na sama amaana boobu nag asamaan yi laa ko njëkk a gaaral ñu gàntu ne ma attanuñ ko ma gaaral ko suuf yi ñu gàntu ne ma attanuñ ko ma gaaral ko doj yi ñu gàntu ne ma attanuñ ko waaye ma gaaral ko doomu aadama ne ma indi attan ko kon innahu kaana zaluman jahula doomu aadama ku tooñ bàppoon waaye ku réere borom la it ndax la ñëpp gàntu moo ko nangu gannaaw bu ko nangoo nag kon fawo nag sun bam natt ko seet ba xam loolee mu wax ndax dëgg la ci moom wala déet alladi xalaqa al mawta wal xayaat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sun boom mooy ki leen bind laataa ngeen di am seenu moom la moom la soob seenu am moom la soob te moo leen bind gi ak in leen fi fas fi ëllëg jullu ci leen leen lu weesu nattu leen nattu leen ndax am kan ci moo ci gën a rafet jëf ngeen mu firndeel rek kàddu nga am tontoon démb ci waxaat feneen ne inna jaal na maa lala de sinatallaha li nabluhumu ayyuhumu ahsanu amala wa inna li jaa'iluun maa alayha sa'idan jurusa lépp kon findeel doomu aadama kon li ko fi yàlla indee natt ko la ba lam waxoon dëgg la ci moom wala déet kon lañ ci dégg kon bindees ko ngir wàcc ko wala boyal ko ba ko sob def mbaa ko sob mel waaye dafa masuliya warugar wu rëy wuñ ko gàll am itam taxawaay bu mu war a taxaw te pas-pas lislaam loolu lay jural nit ki ñu dégg ci loolu ne kon ngir bàyyi ko ci coobareem a xaasiba naasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun wala xad fatana alladi min qabli fala yalamanna allahu alladina sadaqu wala yalamanna alkadibin moo ndax nit daa jort na day wax ne gëm naa rek ma sukkandiku ca lam waxtu du ma ko nattu njëkk fitnaal ko ñeleen fi jiitu woon day foofu laa jaaru ñoom dam leen nattu woon fitnaal leen ba ñe ca dëggal seenu dëggal ne fàng ñe ca dëggalu seenu ñàkk dëggal ne fàng faawu ma jaar yéen foofa kon li ci dégg mooy bindee su ko ngir fo te pomi dañ na këpp adduna caaxaan yi bari na afa xasibtumu annama xalaqtaakum abasa wa annakum ilayhi laa turjaun fa taala allahu malikul xaq laa ilaha illa hu rabbul arshil karim moo tax da ngeen jortan dema leen bi nigét fo wala ngeen jortan du ngeen ñëwaat fii sama kanam ma seet la doon jëf mu ne yàlla jomb na moos di def leen luy niru fo te bindi jox kom xel jox ko kàttan te doo doye woo ko dara day niru fo am na lu ñu di doye sun boom ne asmaan suuf seen diggante bi nu ma ci lenn ngir fo lu ci ne ci dëgg wér la ko waaye lépp ci nit ñi na xamuñu ko waaye nañ nañ xel ne inna yawmal fasli miiqaatuhum ajmain yawma laa yughni mawlan an mawlon chen wala misron illa man rahimallah bisa ngi ci kanam boo xam ne du jaas te du rëcc te kenn du fa rëcciit bis la boo xam ne dana daje ak yéen yëpp kenn ku nekk dana mel ni yow dong laa bindoon ci wéetaay wa kulluhum aatihi yawma xiyaamati farda kenn ku ne naa wéetee yoo ni yow dong laa bindoon la daale fa nga juddoo ba fa nga faatu lépp ñu topp ko lépp waxtu par waxtu saa par saa waxtu nekk saa su nekk loo ca jëf ak loo ca wax ak loo ca fas lépp ma fay la ko soo rafetee ak su ñaawee a yaxsabu linsaanu ay yutraka suda mu nax ni daa def nañ ko bayal nig jur fu ko neex jëm kon yooyu aaya ak yu mel ni ñoom dafay tegtal ne kon nit yàlla da koy bind ngir mbir mu am solo moom koy doye te weesu na ko jaamu te wéetal ko doonub xalifaam ci kaw suuf nekk fi defar ak tabax ak jagal te bañ a yàq bañ a moy bañ jalgati lii tax yàlla bind ko moo tax in mujj ko indi ko ci kaw suuf dundam googi ci kaw suuf nekk dund ko am solo lool ndax nit ki dundinu addunaam mooy tegtale maanaam ci ni mu dund ci àdduna ci rafetal wala ñaawal mooy tegtal dundinu ëllëgam ci texe wala ak texe di wala moo koy firndeel dund googu nag am nu mu séddili ko ko ci ñetti xaaj xaaj bi ñi di ko tudde ak ngone xaaj bi ci topp ñu di ko tudde ak ndaw xaaj ba ci mujj ñu tudde ak mag allahu alladi xalaqakum min dof summa jaala min baadi dofin quwa summa jaale min baadi quwatin dofan wa shayba ci sa xaaj bu njëkk bi loo ci man dar loo ci man dañ la koy manal xaaj mujj bi noon yi kon xaaj bi ci digg bi li ñu tuddi ak ndaw lool mooy la am solo ci dundu nit ki kon as man la su gàtt su ñaari tëli séq muy tëleeg ngone ak tëleeg mag te ndiggante su gàtt soo day jaxasoog ay yitte àdduna ay xat-xat ay gàllankoor ay wéredi ay yitte وحده لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله السلام أشهد أن محمدا رسول الله yagal sa tay ci nga koy jëf li yagal sa ëllëg ci nga koy jëf te Sëñ Tuubaa na kat nit dafa am ñu far lool ñu ko séq kon bu mu sàgganti seen diggante ka ci njëkk di seytaani di su far lool ci yàq ay jëfam inna shaytaan lakum aduwwun fattaxiduuhu aduwwa su mu doon ne seytaan seen noonu la ngeen ko jàppe ab noonu ka des di malaaka mu farlu lool ci bind say jëf wa inna aleykum la xaafidina kiraaman kaatibina yaalamuuna ma tafaaluun ñaañu koy séq nag kon waroo sàggan ci seen diggante kii yàqale rek ko tax a jóg kii nag lépp lépp lu jóge ci du dana ko bind du tegtal ne daf dafeer ci xam-xam yàlla waaye nag maanduk suñu borom lay tegtale suñu borom nag bim nu bëggee dimbale dafa noo jox ay jumtukaay yoo xam ne ci la mën a jaar ba man cee defar sunu tey sunu ëllëg man ko jàpp ci juróomi yëf mooy jox nanu ak ndaw jox nu ak wér jox nu man-man muy muy muy koom jox nu ak jot jox nu ak dund ci juróom yooyu la ñu sukkandiku ngir mën a defar tey ak ëllëg mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne iqtanim xamsan xabla xams shababaka xabla haramik wa sixataka xabla suqmik wa xinaaka xabla faqrik wa faraaxaka xabla soxlik wa xayaataka xabla mawtik farlul ci juróomi yëf balaa juróomi yëf ñëw ndax bu ci na gàllankoor bu ci kanam boo xam ne bu asee yàqu ko ba njëkk mooy sag ndaw na nga ca lu ci jëf lépp luy jagal sa teeg sa ëllëg balaa ak mag dikk na so su ma ak mag dikkee gàllankoor dikk na ba ci topp xéewal la farlu ca jëf ca lu jariñ teeg ëllëg balaa wére di dikk ndax wér goo gis ca topp te di gàllankoor la ba ca topp mooy sam moo xam néew na moo xam bari na la nga jëf lu lay jural ngërëmal yàlla jariñ ju tey ëllëg balaa ak ñàkk dikk ndax man ngoo gis ñàkk cay topp koom moo gis ñàkk cay topp alal lu bari bari bari bari da nga ko ñàkk benn alal ji njëkka dem bala fi mbaayoo nga dem ba fi alal ji bala caa lenn am nag nga jëfal ci yàlla lu mën a defar sa mën a defar sa ëllëg ba ci topp mooy ak jot ak jot xéewal la donte mëtta baril waaye gis nañ ñu ñett yu njëkk yépp ak ndaw lay àndal ndaw mooy wér ndaw mooy mën a fàgg bay amum koom ndawit mooy amuk jot kon jot ga farlu ci jëf ci lu la jariñ ci sa tey sa ëllëg balaa jote dee ñëw ndax jot goo gis jote dee ca topp bay topp dund bi nga dund faatogoo farlul ci dund gi balaa faatu di ndax faat dund goo gis faatoo ca topp kon balaa faatu farlu ca jëf ci lu la jër ngërmal yàlla lu defal sa tey ëllëg balaa faatu dikk ndax Sëñ Tuubaa kat ña faatu na ca bàmmeel yi lañ gën a bëgg seen seen mébét mi gën a rëy mooy del si dont benn minute la ñu jëf fi lool suñ delloo mu amal leen njariñ ñoom nag lañ bëgg te mënuñu ko am yow yaa ngi ci diggam yaa ngi ci digg loolu kon fexeel ba jariñoo ko bañ ko yàq bañ ko sàggane euh, kon loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax a baax yéen saa su newoon na bis balaa benn jaama séq benn jóge def na ko laaj ñetti laaj te yëpp danga ko tontu an umri fii ma af naa moo ci njëkk sa dund gi nga dund ci àddina laa dund gi ana ci lan nga ko jeexal waa an shabaab yi ab laa ndaw gi gi la yàlla jox na nga am kàtt xel man sa bopp lépp ndaw googu ana ci lan nga ko ràppal ba ko ñaata mooy sa sa alal foo ko jëlee ak foo ko dugal dañ njëkk lijjanti foo ko jëlee ba mu leer ñu lijjanti foo ko dugal ba mu leer ñetti laaj yi balaa kenn jéggi siraat da nga ko tontu mu doon lu mat a bàyyi xel mel doom aadama na fàtte na yooyu yépp topp tubaab yu ban yi nga xam ne dañoo jël seeni valeur seeni ji ko yàqu imposé nu ko wan ndaw ne ko yow moom dangaa war a dund sag ndaw danga war a dox sag ndaw danga nga koy dox mooy dangaa war a fo dangaa war a caaxaan indil nu football indil nu làmb indil nu misik indil nu fecc ak way ak caaxaan ne ko lii ci nga war a dund sag ndaw nga ne ca ba xëy màggat gëm loolu nel sag wér danga caa war a cëppi-cëppi dangaa war a fo dangaa war a Eh, da ngaa war a lekk bu baax da war a naan bu baax nga ne ca yooya ba fàtte jàmm yàlla gëm loolu it ne la da war a am alal ju bari eh, àdduna ku fi nekk di dund te amoo alal doo fi tekki dara soo laajee nu may def ba am alal ñu won la buntu yomb yoo xam dara du ca baax man laa gis ci ruq ne la man laa financé alal ju baree baree baree bari ay milliards loo soxla ñu jox la ci kaw nag nga bokk ci nga bokk fii diine joo xam ne diine franc-maçonnerie diine joo xam ne yàlla bokkut yonent bi saa sallam bokkut alxuraan bokkut dalil islam bokkut soo ca bokkee lu la sant ci lu bon nga def soo dee alal moom dootu ko jaxal ci àdduna tegal la itam li ñu tudde ngóor jigéen liwaat ne la moom moo gën a woyof woyofalal la ko ne itam soo ci bokkee loo bëgg ci ala mën la ko jox nga xam ne ngóor jigéen ko nga xam ne fi mu toll dañ nag dañ daanaka dañ na adduna li ëpp ci réew yi réew yi adduna daganal lañ ko ci seeni réew ñi ko daganalal gu itam tubaab yi teg nañ leen jatt nañ leen ngir bëgguñu ñu daganal ko te senegal gi ci la bokk nga xam ne fi ni ci góote gu métti lañ nekk ndax tubaab yi jàtt nañ leen ci wet bëgguñu ñu daganal ko te askan wi nanguwuñu waaye ñu xam ne loolu nag yomb ga ca nekk tax na wala kom ma ca nekk tax na li ëpp ci ndaw ñi daw jëm ca ndax lépp ñun dañu dañu dañoo bëgg am ay bëgg-bëgg nag ñooy sonn xam ne ñoo fees dell réew mi donte daggana la guñ ko officiellement itam fees nañ fi dell waaye ñu ngi ci yoon wi dañoo ñemee gut rek bu dee sag jot ñu indil la portable defa la ca whatsapp defal la ci youtube facebook instagram tiktok ila axiri yu bare bare bari soo dee sa temps lépp lépp sa waxtu lépp nga jaaxal ko ci yooyu teelatoo jàng alxuraan teelatoo jàng xasida teelatoo wir teelatoo naafila ca ngay nekk rek guddi guddi ba ci waxtu yaa ngi ci sa portable di di di di cak-cak loolu nag la dafay dafay sànk ak dund Sëñ Tuubaa newoon na nit ki li ko yàlla jox li ci gën a cher gën ëpp ci valeur mooy lim ko jox ci waxtu waxtu mooy li gën a rëy ci la yàlla jox wa alam bi anna waxta waxta shaxsin min ans ashya'i fasal bil ans suñu dama ne li yàlla jox li ci ëpp valeur gën cee mag gën cee rëy mooy lim la jox ci waxtu kon nanga ko jeexal na ci lu am njariñ wax munoo jàng munoo jàng te moo waxtu munoo jaamu yàlla te moo waxtu munoo liggéey te moo waxtu kon lépp ci waxtu la bis penc nag la lépp di leer te foofu rek na mooy mooy fañ fañ ñuy négee su ko loolee nga xam ne loolu kon mooy li moo fëkk li ëpp ci ndaw ñi li ko gën a waral mooy dañoo teel a bari bëgg-bëgg teel a bari mébét teel a bëgg xaalis te nangu ñoo sonn loola waral nag ñu réer jëm ci yomb yooyu ba tey loolu moo waral mbëkk mi ndaw ñëpp ngi bëgg a dem Espagne ay junni junni di dee ci géej gi ñeen ñi di jaar ci yoonu suuf si ñu deen jàpp otaas di laaj xaalis mbaa ñu di leen rey mbaa ñu jàpp ni di leen jaay ni jàmm te li fi ko waral mooy yàkkamti seen adduna te adduna xëyul xëy sotti te du benn bis du ñaari bis koo ci waxal dama bëgg tekk la lay wax te du caagin dem Espagne tax a tekk bar nañu bar nañu tekk te génnuñu senegal foo nekk te nangu fa liggéey lay sa wasa yàlla dana la ko jox li bon kay mooy caaral toog rek jéemoo dara te lu ne nga bëgg ko am loolu moo moo la ci lu bare bare bare fada atan waraaxatan lan yusira saxsan arada an yakuna musira Sëriñ eh, loxoy neen ak yàccaaral ak tayal du du du gënal ku ku bëgg am dara moo barik jot baaxul ci genn genn genn wet rawati nag ci naw baax baax ci ñëpp la la yées waaye ci ndaw ndaw ndaw la gën a bon barik jot day tax nga dugg ci la watu dugg def la watu barik jot dafa yàq am réew moo tax sëñ bi jax ne mooy lu barik jot ndax ko barik jot kenn la dul jot te ñëpp a koy jot nit ko barik jot foo ko gisee ak bët na nga ne téppét seytaane saakat si Abdou Fall na daana wax ne a ah, doom ko barik jot lu mu du ko jot te lu ko jot ko ko barik jot lu mu yóotu du ko jot te moom lu ko jot ko yàkkamtiin moo waral kay sàcc di sàcc kay agresse di agressé kay triyaane di triyaane kay teg ay diil ak ak ak a dóori di ko def may wàll jigéen di di di jaay boppam dugg ci lu warut di tax dugg ci ay lixóor yoo xam ne diina bañ na ko ngor bañ na ko aada sax ñaawlu na ko sëñ ba jaxat ne woon na lu jot nga jot ca takaat loo xam ne jot ca jotul doo daw ba jot ca may bay bayi feefe ji moo la jot nit ku nekk ne lii sa wërsëg soo doon nelaw sax danga ca jot yàlla noppi na ci lépp yaa taaliba risqi fi dunya bi quwwatihi tasiru min baldin fiha ila baladi law tirta bayna sama wal ardi mun mun mujtahidan fi surobima xeyr risqi lan tajidi xasir anaka fa inna risqi mun xasimun yaati ilayka wala fi jabhatil asdi neen yow mi sàkko wërsëgu àdduna di dox diggante réew ak réew fu na nga nga jëm fa boo doon naaw diggante asamaan suuf yi ngir sàkk benn goxum ndox te sa wërsëg doo ci jot mukk ma na na nga noppal xam ne yàlla noppi na séddale li wasak lu ñu séddale ba noppi lay sawal su nekkoon ci jéebu gaynde rek da ci jot kon kon da ngay sabab lu kër-kër yi yaakaar nag yàlla ak ak ak anam goo mën a kër-kër yi tamit go dagan rek nang na nga ci jublu nangoo liggéey nangoo sonn te bañ a caaxaan yàlla yàlla bol dimbale bol defal tawfiq xiir nu ci njub te saxal nu ci te def nu dëgg dëgg taalibe Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa nangu nu suñu taalibe asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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 رسول الله عباده جميع أعمالهم قلت أو كثرت ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو شهادة عبد ظهرت طويته وأشرقت بالإيمان سريرته وتنورت ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير مولود شهد به خير أمة للناس أخرجت صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين كبرت مكارمهم وكثرت أما بعد فيا أيها الناس واذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا توفكون واستغفروا الله وله أنيبون وإياه فراقبوا وبخياركم توسلوا وعظموا حرمات الله وعن الظلم ارجعوا ومن المظالم تحللوا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين العشرة واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الظلم فإنه يعيب العامة كما يشين الخاصه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا عباد الله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي كلكم ضال fastahduni ahdikum yaa cibaadi kullukum jaa'icun illaa man atcamtuhu fastatcimuni atcimkum yaa cibaadi kullukum caarin illaa man kasawtuhu fastaksuuni aksukum يا عبادي كلكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم الحمد لله راحم من تضرع بين يديه منيبا وخاضعا وجابر صرع من قصده منكسرا متواضعا لا إله إلا هو لا مانع لما أعطى ولا معطي لما أصبح له مانعا أحمده لا أني أحصي الثناء عليه ولكني أصل ما كنت له بترك حمده قاطعا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مقبول الصفعة مجاب الدعوة أما بعد فيا أيها الناس استنزلوا ما عند الله بالندم والاستغفار وقفوا بين يديه وقوف الذل والانكسار فإن من وقف بباب الكريم فتح له أبوابه ومن استغفره قضى حوائجه ويسر أسبابه وفي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على دائكم ودوائكم ألا إن داءكم الذنوب ودواءكم الاستغفار جعلني الله وإياكم ممن كان لحديث النبي الكريم واعيا وفيما ينفعه يوم يقوم الأشهاد مجدا وساعيا لا يرفع شكواه إلا لمن يكشف بلواه ولا يعلن دعاء أهو إلا لمن يجيب المضطر إذا دعاه ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين غفر الله ذنوبنا وستر عيوبنا وطهر قلوبنا ويسر مطلوبنا وأصلح أحوالنا وزكى أعمالنا وسدد أقوالنا وحقق في عفوه أعمالنا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar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

الله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 سمع الله حبنا لك الحمد الله أكبر الله asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.